Marietou Dieng la suivante. Merci beaucoup, Monsieur le Président. monsieur le ministre garde des Sceaux monsieur le ministre de la justice ñu ngi lay nuyu du nuyu monsieur le ministre du travail du nuyu les collaborateurs ak honorable député yi monsieur le président di jël kàddu ci tiis ak naqar ak xol bu metti lool vraiment si dentiste bi laa jóge mais sama xol dafa metti parce que tey bu fekkee ni góor dafa yëkkati loxoom di ko teg ci jigéen fii ci biir assemblée nationale bi war nañoo tiit war nañoo rus fii la ministre de la femme jaar barki démb ñun ñëpp en tant que parlementaire ñu dénoncer les violences faites aux femmes ñu ne violence physique ñu ne violence morale mais boo xoolee ak lu nu mënti wax man de premier jour bi dund naa fi loo xam ne gis naa fi keroog ay góor ci opposition bi ay jigéen xas leen saaga leen mais ba nu wëlbatikoo dañ ni jigéen fóon ak raay lañ ci xam xamuñu ci dóor loolu moo ci war a nekk parce que nag ku nekk jigéen moo la jur nga am sœur nga am jigéen muy sa yaay nga war a fekk ñuy noot jigéen nga war koo faj waaye waratoo jël sa tànk di ko këdd ci biiru jigéen ñu gis ko fii video yaa ngi daw kon ma yaakaar ni góor ñi nga xam tey dañu nekkoon opposition tey ñoo waroon a jël seen naataangoo boobu wax ak moom mais pas di ko supporter pas di ko jàppale metti na nag si xol ndax ci politique nañu nekk mais nekkuñu ci jungle waxuñu barbarie moo fii daw waxuñu ay dóorante moo fii daw mun nañu xeex ci idée ku nekk mën nga wax sa xalaat mën nañu proposer mën nañu am ay idées yu divergentes mais nag yëkkati sa loxo ñëw dóor jigéen ay góor bàyyi la ci du dugg du yoon te ñun jigéenu assemblée bi waruñu seetaan ñaar ñooñu tey di fi jël parole du dëgg du yoon nan ko faj yéen jigéen ñi yéen laay waxal bu ñu nangu ñaari parlementaire yooyu di fi jël parole fu mu yam neex parce que nag dafa am loo xam ne bu jotee nañ ko faj te danoo war a jóg ñun ñu faj ko ñun jigéen ñu ñun suñu bopp ku nekk ñaar ñooñu ñaari parlementaire yooyu dootu dootuñu taxaw fii di wax bu ñu taxaw fii di wax parce que waruñu yëkkati seen loxo di dóore di këdde di mel ni ay mbaam àll c'est lâche c'est lâche et ça ne nous honore pas du tout amul benn jigéen bu leen di jàppale man Aminata Gueye jàpp ànduma ci tey ànduma ci ëllëg te ñooñu jour bu ñu fi jëlee parole ñun duñ leen bàyyi ñu jël parole duñ ko nangu tant que présenté wuñu seen ay excuse pour lan pour lan ñu war a yëkkati seen loxo di dóor ay jigéen fan nañ ko teg monsieur le ministre nga fekkee loolu mu ñaaw torop mu ñaaw torop buñ leen doon saaga war nañu mën a maîtriser seen bopp ku dóor fii jigéen mën mën nga dóor sa sœur mën nga dóor sa épouse je Dieng absente asalaamaaleykum monsieur le président ñu lay remercier monsieur le ministre de ñu lay nuyu di la sargal di nuyu aussi di nga àndal tey nag daanaka xel yi jaxasoo nañ ba di taxoon sax ñu ñëwoon war ko teewee tey waxtaan ak yow xam naa xaw na jaxase xel yi mais c'est tout fait normal parce que jigéen li muy signifié ci àddina jigéen mooy jur jigéen mooy jur góor góor bi tiim jigéen di ko di ko dóor moom jigéen moo ko jur moo tax tey xel yi dafa xaw a jaxasoo ba tax na monsieur le président lii ñu war a xoolaat la l'Assemblée nationale qui jadis incarnait la vitalité de notre démocratie est devenue aux yeux de certains un lieu d'expression d'antivaleurs. Au début de cette législature, nous nous avions fixé Comme sacerdoce, de nous démarquer des mauvais comportements et pratique notées lors des précédentes législatures. Ainsi, je refuse et moi-même j'invite toutes les honorables dames députées à cette Assemblée nationale-là de refuser que l'Assemblée nationale devienne le siège de violences basées sur le genre en vue des derniers événements survenus ce matin à l'hémicycle. Les femmes, la femme est souvent considérée comme le sexe faible. Mais je sais que vous savez qu'on n'est pas le sexe faible. Par certains hommes, soi-disant hommes aussi, qui se donnent le droit de toucher à son intégrité morale ou physique, comme l'a fait le collègue aujourd'hui sur notre sœur Aminia Inebi. Qu'en serait-il s'il avait un homme en face de lui, cet agresseur-là S'il avait en face de lui Bal Fofana, il n'aurait pas osé le toucher. Et ça, il le sait et nous le savons. Peu importe sa position, je rappelle que nous sommes en démocratie et cela nous donne le droit d'exprimer clairement nos positions, bien entendu, mais dans le respect et la courtoisie qu'il se doit. Je condamne avec la dernière énergie cette violence à l'Assemblée nationale, à l'endroit notre sœur et collègue Aminyaï, à ce septième jour des six jours contre la violence faite aux femmes et aux filles. Et, vous êtes témoins. Les médias sont là, les gens peuvent être témoins. Et j'en profite pour rappeler à la responsabilité des organisations de droits de l'homme pour veiller à ce que cet acte soit puni. Aujourd'hui même, on voudrait savoir si ça sera puni ou pas. J'en appelle à la responsabilité des presses nationales et internationales. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale doit être connu de et doit être actée et punie. Les associations qui œuvrent au respect des droits des femmes sont ainsi interpellées afin que cesse ce genre de pratique qui déshonore la femme, mère du monde. On est à l'ère des femmes. La femme doit être vue, elle doit être entendue, elle doit être respectée, elle ne doit pas être battue, elle doit être, regardée de, bons yeux de tes Et pour rappel, l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, soyez prêts, parce que ça va arriver, Inch'Allah. Je vous remercie. chers collègues. La parole est à notre collègue Khalidou Wagé. absent. Njalu li